Thank you. waaw du ñàkk yooyu. critiques yooyu daf ñuy metti ndax melul noonu daf ñuy daf may metti man anam am na critique boo xam ne Amérique la ma fekk man maa ngi soog a ñëw dama demoon Amérique. amerig la ma fekk uh-huh. ñu ma koy nëbba. Uh-huh. ma ne yéen lan ngeen may nëbba si kinne ñu woo sama doom ba fa nekk xadi caam di bàjjanam ndax lépp moom la. moo ko dugal jardin muy jàng moo ko dugal école ba bac mooy mooy fay moo ma si jàppale bu baax a baax a baax jàppale na ma si xale bi bu baax a baax a baax a baax dama koy ñaana moom tam fan wu gudd ak wér gu moom gi rafet man reen yan na man déwoon la kopp ma toog ñu ma nëbba ma naa loolu may nëbba ñu ne Adamo moo moo wax si Kiné Ndiaye xaw ma lan ma ne ko bu leen naqari ndax lu kii rek ndax lu ñëw rek kii wu ba kii nit la adamoo day day may nit buzz yow xale nga daf la bëgg a may buzz yii yëpp booba amul woon ah yii yëpp amul woon luñ ko wax rek danga ko koo jiiñ defu ko waxu ko defu ko waxu ko macha allah demul dikkul jaaxaluma jëliwuma ko fu ma neexul su may tëdd ñooy tëdd su ma yeewoo ñooy ñooy yeewoondoo ah, demul dikkul ñu ngi sama biir néeg bii tëdd ñooy doo ñooy yeewandoo. jëlu appartement de te bu ko neexoon nag jëli appartement ko neexoon def seen def ne ay moroomam jëli appartement kon du ma ko mënal dara damay toog yenn saa ma dem sa appartement ba ñaanal ko su ma neexee ma toog fa weekend su ma neexee ma fanaan fa waaye defu ko waaw su ma bëggee lu dëgg wala noppale ko dëgg sa appartement ba laay dem te du ma génne walaay dem te du noppale ko ba sama xol sedd waaye defu ko mi ngi sama kër gi demul dikkul nag waaw. macha ah, ah, kontaan rek du li télé yi nekk fii moo tax mu waxoon parce que foog naa ne magum jëmm du toog fii di créer kontaan naa rek di gën a yokk jom mu gën a kontaan di ko wax ni tamit lu ma sonn rek moom la moom moo tax sama yéene si moom. incha allah fii ak vacances ko gis bu neexee yàlla incha sax naa la wax critique yi dara yokk jom pour gën dara ankal li lay wax bu la méttee c'est parce que danga ko def. du ma yàq dina ma métti naa jooy damay jooy suñu famille ñëpp naa ma jooy looy jooy looy mais nit la. boo gisee yenn wax yi dalay metti suñ la wutalee amaluñ la ñu taf sa yaay sa papa bu metti sama papa gaañu ñu taf ko du ma jooy naa jooy mais bal naa ko bal naa ko si xol bu sedd guy. ko merci. sama frère la merci. ok ok booy jaay dara nit ñun ñoo si war a njëkk dugal sunu doole ba kuñ ci fekk si mu fekk suñu. mais maa ngi lay ñaan yal na la yàlla taxaw sama doom suma xarit moom bu doon góor maa mi ngi ni bu doon góor man lay tudd parce que keroog bi biñ koy ngénte papa mi ngi football ci terrain bi man maa toog ak sam papa papa bi ne ma ana baal naa man ko baal naa man la yónni nee na ko tuddee nangam mais bu doon góor tey Birame Ndiaye lay tudd kii ma yor ko ci yople soow chaque jour maa ngi këram maa ko doon fab nii suma xarit la baayam di suma xarit nag bala naar yàlla xippi àjjana kon nag lii nga def ni yokkati nga darajay du njaay roos Kiné ca kaw ca kanam merci beaucoup mais